pare nit bëgg nga xañ man tey am na koo xam te ne boo ma ko fayoon tey si combat mhm. nit mënu ma koo xañ dama koy jël dem faj samay soxla mhm. ñëw bëre ko parce que temps bi xaaru la xaarul la waaw c'est mooy mais ñun ñii tey ak li ñu def si làmb surtout nag côté lutte simple am ay combat arène bëri daan sama combat man ak ngeer bu sa bii passé jag si tëgg ko bu ko a ngi nii ma duy esaan ba mu fees Boucar day suivre sama statut bi ma ministre di Amadou Ba di jox xaal xaalis bi ak nag bi ma defee regroupement. Mm. jax si boogagu billet yi ma jox yëpp dama ko jënd goo fay dafa ñëw mu bind chèque jox ma ne ma jox ko. imagine tu wax nag kooku noonu ay transitaire ku si mel ni ay demb soirée. waaw ah euh, ay ay yu mag. yoo xamante ne mi ngi moom it Karim Sène maire Karim Sène maire Fimela. Mamadou Dione nga Moussa yu si Diome. Mamadou Dione imagine tu waaw ay Mamadou Dione. <laughs> ah ñooñu ñëpp ñun dañoo nekk ay mbëru gox mbër yoo xamante ne bu ñu jógee mm. maanaam ñi ñuy topp dañoo bari mais léegi Tyson bañ yow Forza war na war na maag Forza dafa war a mun a neex maag Jordan mi toog fii nii keroog ah. di wax waxu combat dafa dafa neex dafa neex yow Forza wala Jordan moom Jordan ñooñu noonu waa war a bëre mm. comprendre ay jam ceeri ñu ngi nii amuñu komba waaw jam jam jam sama booy gars dem nañ ba commencé koo sax fàtte. Mhm. Hmm. comprendre affaire bi nekkatul maanaam am naa vingt combats wala trente combats mais dañoo war a ñëw ñu bëri. Hmm. ñu bëri suñu biir ñun ñooñu. dañoo war a bëri te sa avance ngi si Modou Baye Fall. sama avance mu pare tey tey tey tey tey tey boo woowee Modou Baye Fall ak sa ménagère ñu fay ay millions yu bëri nga yóbbu ko sa kër tabaski bi mu ngi ñëw koor gi mu ngi ñëw. ak yooyu noonu mais imagine toi nga toog naan du ma bëri diw ñu fay ay millions nga toog hmm. comprendre dangay ngay jógee sax di woo yenn gars yi naa nga waaye mbër reeru mbër laa soxla des fois mbër yi da ngay gis ku siy woo nit sax du ko jëg. dëgg la tey tey ñu fay la général euh, li nga def général Malika nii ëbbali nga foog ni gars yi dinañ jël sa avance nii nii rek quoi. mais lii dara lii lii làmb rek. du ah. question de lutte simple moom sax li may wax rek li may wax sax maanaam lutte simple amul mën quoi. maanaam mbër yi <laughs> mais man dama jàpp ni man dama jàpp ni ëbbali dafa am yoon bi tracé wu mooy mbëru lutte simple yi. Hmm. jamono ji mbër yoo xamante dañ jóge nekk ay champion ci lutte traditionnelle dafa am li leen di propulser ñu nekk au devant de la scène. Hmm. te Obeuly da ko commencé woon mais dafa mel ni da ko wàññi. Hmm. mooy rëg-rëg lu yombaloon ay combat en lutte avec frappe mooy danoon wàcc chaque jour di jël. Franc lu yombaloon ay combat avec frappe mooy danoon wàcc chaque jour di jël. day dem ba day créer benn genre enthousiasme autour de la personne. Serigne Ndiaye 2 da doon wàcc di jël. combat boo gisee mu jafe mooy wàccatul. est-ce dafa manqué li muy wàcc li muy jël ay làmb hmm. est-ce que tey bu ñu doon dégg chaque jour Obali mooy jël mooy jël mooy jël. Hmm. moo fi teg tànk ci lutte simple combat am a yomb est-ce que loolu problème bi. est-ce que du wàññiwoo lutte simple di gën a jafe. Hmm? faga combat yi gën a jafe maanaam bu ñu continuer woon maanaam bu ñu continuer woon si mbapat mi rek. fu mbapat am nga dem jël ko bi gars yi si nga mbër yi man man mbër ngaa xam naa mbër yi ni ñuy fonctionner si nga ah, gars yi di gën a daw Boucar xam na li may wax. mais loolu pourtant si nga gars yi di mais lu tax Serigne lu tax Serigne Ndiaye yow xam nga ne yow buzz tey bu ma wàccoon man Ibou Ndiaye bu ma wàccoon si cinq ramb bu ma jëgu ka cinq yëpp tamit dinaa jël kaati mbaa ma jël trois yi te bu ma si jëgu tamit dama siy finaalu loolu suñu borom def na ko ci ñun. parce que ay xale lañ am nañ dooge am nañ fuga fayda am nañ ginnaaw bi mais problème bi mooy maanaam lutte simple bi bu fekkee ne yow da nga bëgg a marquer sa empreinte si lutte avec frappe bi ah, nga tegee ka à côté. loolu mooy. man man gisuma maanaam loolu moo am Serigne Ndiaye dëgg lu tax mu tegee lutte simple bi. à côté ragal daanu rek. déedéet du ragal daanu bës. ragal daanu barki parce que mbër bu mbër mbër lutte simple bu ko leer ni jamono ji saa yu wàccee fu mu toll moo fi teg tànk moo mën saa yu wàccee day jël. Hmm. dara du ko tere jël. Hmm. Serigne Ndiaye lu ko génnee lutte simple dernier combat am lan la da cee am defet hmm. mais mbër buy dem di am ndam ci lutte simple day yokk sa promotion. mais man comprendre lu ma lan moo tax Obali li mu doon wàcc wàccatu ko. waaw ah, mais man dama foogoon ni da nga blessé sax benn jamono. déedéet dara daguma tey laa gën a entraîné tey laa gën a am doole dara daguma maa ngi sant yàlla bu baax a baax. parce que sa temps de règne ci lutte simple. Ah. dafa dafa des. Mhm. mooy toujours tu as le rôle de second. Mhm. mooy toujours tu as mhm. ñu naan ubbali rëg-rëg. mais naan rëg-rëg moo ëpp li muy jël. ñu naan ubbali franc benn rivalité yàlla def na jàmm seen diggante yéen a bokk seen parcelle. mais dañu soxla ñu n ñoom ñaar bi ñu mujjee daje ay at gaal gi dafa métti. non waaw dafa métti après dafa métti ñu ñëw bëgg waaw gars yi dañ dox jàmm seen diggante sax hmm. parce que tamit mënuñoo bokk parcelle après loolu day wàññi seen ay supporters hmm. mais Obali tamit bëgg nañ gis ñu ne ñu ne ñu ne deux ans yi wala trois ans yi Obali moo téye làmb waxuñu benn année hmm. lu waral loolu waaw dëgg la gis nga nga wax wala da nga bëgg a puus bàyyi ay duudu saane parce que yéen a bokk ay joof yor ak yooyu noonu non demeewul noonu man nag instant bi nii moom ah bës bu dee yàgg dëgg rek nga bëgg wax dëgg yàgg man dama man si sa bëri dóor bi laa gën a gisati sama bopp jamono ji que lutte saf avec lutte simple buzz lutte simple def nañ si lu ne buzz fu ne jëg Boucar mii xam na si yàgg dama toog fu ne jëg nañ fa làmb comprends nga ba euh, année passée moo si mujjee ñu jël drapeau chef de l'État jël open jël euh, par équipe mm. mais instant bii nii nag wax dëgg yàlla ah bu ñu bu maanaam bu ñu wóoroon ne instant bii nii pareetuñu pour kon dañuy maanaam man su ma paree woon instant bi su su ma demoon ba mu wóor ma ne nag instant bii moom lutte see def dara ah damay concentré wu si continuer si rythme simple bi ba xëy bàyyi bëri parce que boo xoolee rythme simple bi tey xoolal ku si mel ni ay Ibou Senghor numéro 2. ah rythme simple bi moo tax gis nga seen carrière ni mu demee nga xool ku si mel ni ay Caaka Fay comprendre nga ak yeneen mbër yeneen mbër yoo xamante ne amul lu ñu defu si rythme simple mais seen carrière demu fenn Boucar xam na li may wax. kan mooy sama manager à Cissé. à Cissé à Cissé. mais est-ce que tey jotul itam nga am nga am un bon agent aussi parce que manager c'est une chose. mais manager bu gérer bu gérer ay. ba même waxuma la manager parce que manager yi nu mu bindoo sànq question boobu rëcc na ma ak président Bira war nañu xoolaat. Euh, vraiment statut manager yi lan laaj. mais un manager aussi qui gère à ah, Cissé c'est sûr qu'il a plus de vingt athlètes. wala 30 athlètes. ëpp na ko ëpp na ko ëpp na ko li muy am donc gestion wu carrière au bëri mun na jafe. Mhm. mais est que tey jotul nga am benn agence de marketing wala agent bu dëgër bu gérer carrière au bëri parce que quoi qu'on puisse dire au bëri dafa nekk benn denrée rare. mooy koo xamante ne tu as tout le public sérieux derrière toi. Mhm. combat bi ma seetaan yëpp day feesal làmb ji ba mu fees del que mu nekk Iba Mar que mu nekk arène nationale. Mhm. ubbali bu bàkkoo mu neex animateur la bu feccee mu neex dafay yëngal te du mhm. tardel amateur arbitre day siffler mu diree ko yegsi ci sa kaw. mais lan moo manqué est-ce que du agence bee manqué est-ce que du tey Yékini kilifa séeréer yi nekkoon ci ginnaawam ay Mansour Kama et cetera et cetera tey naanaan yooyu noonu est du yooyu nga manqué. waaw loolu tamit bokk na ci. loolu tamit bokk na ci ndaanaan yooyu noonu nga xamante ni parce que tey euh, boo xoogee ni nga waxee rek tey aas suñu ménagère la nag parce que dëkk te ñun wax dëgg yàlla bi ñu commencé bëri bëgg moom nga jox suñu licence mu téyeeg ñu ko si côté gi avec frappe bi mais benn instant day xaw a bàyyi goxoom ci ñun si ñi nga xamante ni comme kay ku ci mel ni man. Mm-hmm. parce que tey as waroon na gën a focus si man reyanteeg promoteurs yi. Mm-hmm. pour man samay combat bañ a taxawaalu parce que produit ga boo xamante ne nii tey biir parcelle. comprendre nga tey Assis dafa waroon gën a focus gën a rayante pour man samay combat war samay combat waruñu woon di yàgg. Mhm. parce que comme ni nga ko waxee rek buzz. barke arxuraan kan man dafa am ñu may topp ñoo xamante ne nii ambiance Ibou Ndiaye ak bëri Ibou Ndiaye daf ngay jaragu ne. comprendre nga mais tey imagine toi tey samay combat ni muy jafe ak samay combat ni muy jege temps du yoon man wóor na ma wóor yàgg na su ma bëree waatoon ñaari grand ma bëree waatoon ñaari combat yu damay damay damay damay damay damay bokk si gars yi par force. Hmm. parce que gars yi ëppage wuñ ma dara. maanaam du ginnaaw du mboogoo du maanaam jàppage. ñeme nga Zambala. mais dama ragal ku du ku du Zambala sax faaga. mosoo leen mos ngeen tase Mbapat. tase nañ Mbapat mu daan ma. mu daan la mooy cinq millions am na 5 millions yu Yékini tegoon bëri nañ ma moom mu daan waaw ba pare nga ñeme ko nii te bëri dóor moom moom day dóore. non amul problème ñun ragaguñu ko. Zambala il frappe fort. ragaguñu ko. Ah, gis nga ni mu def sa doomu day Boy fay Boy Faye gis naa mu dóor ko dóor yi mais moom moom day dóore mais amul problème. Ah. waaw amul na ñëw seeti Modou Baye Fall jël avance. amul benn problème bu ko neexee léegi kay na dem si Modou Baye Fall. sama avance dafa xaw a français wu trop ak sa bu rose bi nii fi mu toll nii. <laughs> kurpañ nii man nit simple est-ce que ubbali nii. <laughs> mais mais am est booy tey. boo bu ñooñu bañ man nag bës bës booy temps du ma seet rek léegi yan wax a baaxul rek mais gars yi nii Boucar xam na fi may waxee sax. Ah. gars yi nii wax jee fi ne rek mais mbër yi ngay wax ni yëpp koo si woowoon nii tey en direct ne ko ago ah, diw au bëggee ngi nii si pagato bi sa diggante yaa ak moom mun na nga ne waaw pare naa pour bëri faa faagawu ma au bëgg mhm. mais barki arxuraan koyam si suuf promoteur bu ko woowee ne ko kaay jël avance mun na nga noonu ba mu des Eumeu Sène junior barki arxuraanu karim Eumeu Sène junior ñamee wu sama avance te tey bu bu pare woon pour bëreek man tey ah, bu pare woon pour bëre man promoteur promoteur bu ko fayee cinq millions hmm. barki Seydina Mouhamed ak sama bakkanu yaay ma doogee ko si trois millions mbaa deux millions Eumeu Sène junior ngay waxal man dèjà man ki ma man promoteur bi hmm. tëgg sama combat bi nii hmm. euh, euh, waa waa ji daf ko woo kii fa gi ne sama ginnaaw bu ko xam na ko daf ko ne tëgg combat au bëgg mais bu ko fay comme man boobu buñ ma fay dara fay ak kaw mu seen dox seen combat yi ñaar dox nañ ko mu bañ a jël combat bi kan moo ko dox euh, kii nu mu tudd Jackson ban période daaw avant ma bëri ngeen sax mais ren est-ce que doxaat nañ ko parce ren def nga ay résultats. waaw non ren moom doxaguñ ko moom. waaw ah, te man dèjà man bës dama neex a bëre xam nga tax man du ma dóore. non ku jël Serigne Ndiaye 2. waaw jël Kalmu Ndour. waaw kooku noonu ak ñeneen ñu mu freiné ñu bari. waaw kooku gisuma lu muy ragal. Ah, man de koo gaa jàpp de te wax dëgg yàlla ëpp ma coow. gënuma amul dara goo xamante ne si. làmb waaw bëre général magi ko combat bu métti kon na ñëw ñu bëre Eumeu Sène Junior Forza comprend nga. Jordan euh, Jordan. Euh, waa ji fi ñëw keroog. Zambala jamteeri. Euh, waaw jamteeri ñooy ñëpp. Hmm. combat daaxu ko. Ah. man waruma toog di bañ a bëre maanaam tey tey boo déggee ku si mel ne suñu papa. Yaxya Jóob Yékini biñ ko biñ ko biñ ko suñu papa Yaxya Jóob Yékini biñ ko dékkee micro ne ko si mbëru séeréer yi kan nga yaakaar ne war na nga see mën a remplacer mën nga citer te ñaata mbër ñoo fi ne. Hmm. mais waxu maanaam li tax mu citer ma du si simple. lutte avec frappe moo tax ñu koy wax. ci am ci am ci yow yaakaar dafa am ci man yaakaar léegi nag loolu bokk na si gën a tax man ma gën a focus. si ma continuer woon su ma continuer mbapat mi barke arxuraanu gars yi gisoo dañuy wax mbëru mbapat yi dañuy kagaase mbëru mbapat yi duñ duñu wax ci yow dara. est sa carrière day jeex si mbapat mi après nga toog dem Modou Modou wala nga dem di defi leneen. mu ngi lay jàppale di la dem waaw loolu. ya moom sama papa ga. waaw non xam nga affaire aussi. bu wax dëgg yàlla dañuy déggante non dañuy déggante téléphone mu may conseillé wax dëgg yàlla. waaw loolu la ko mënal amul leneen. loolu rek la ma mënal te man tamit wax dëgg yàlla soxlawu ma tamit si moom leneen lu dul loolu conseiller rek. en 2000 bokk na si say plan en 2000 ak Valdo. en 2000 noonu. ay en 2000 wala ay Valdo xam nga ñooñu moom bokkuñu man si gaayu xam nga tey man ak Jordan ñu taxaw. Hmm. ay plus de 130 kilos. ñu war a dóorante. bëri. Ah, loolu dara waru laa bañ instant bi mais combat mooy combat parce que man xam may bañ comme ni ma li ma dal si ngeer bu sab combat bi passé rek. nga ah. jël ngeer ñëpp ne moo ko mën. mais tey il faut ñu jox ma combat boo xamante ne dañuy naan nag Ibou Ndiaye yaa ngi gis nga contre Tyson 2. Mhm. Ah ma woo ne ma Boucar mii sax nee ma yaa ngi door a am combat. parce que xeex. day bëri day xeex day bëri bu dina am incha dina am incha allah ah a am Tyson na ko ay mboqam bàyyi mu jël avance bi. dinañ ko bàyyi Baye Fall nañ ko bàyyi mu bëri moo gën. Mhm. mu mu mu muy wër plateau yi rek bu paree dellu ndaayaan toog foofu noonu di xaar ay ay combat xaalis xaalis rek donc euh, xam naa dañuy dagg waxtaan bi parce que le temps file il est te tey la aljuma. Beuz nag yow tamit nga taxaw ci. dama bëgg yow nga taxaw ci man xam naa ne boo ci taxawee ni nga ci war a taxawee. Mm. Beuz ak yi ngay defar promotion yi ngay defar ak gars ay direct ak yooyu yi nga si war a taxaw promoteur dañu ngay déglu suñu borom def na ko ci yow. Mm. man xam naa ne boo si jàppee. balaa semaine bi di jeex ma signé maanaam euh. combat bi ak Tyson 2 continuer Hmm. wagal beneen wagal ma seen man dama gëm-gëm bu ma am waaw te rëg-rëg da ko wax ci plateau keroog hmm. bu ñu ko nee sa diggante Modou Lo Modou Lo ne bëriwuma ak rëg-rëg hmm. Franc nee na nga yëg bëriwul ak rëg-rëg Franc lay eh, bëri la astafurlaa rëg-rëg ne bëri jéeg Franc rëg-rëg tontu ko ni ko boo bëriwul ak man ren dinga nga bëri ak man déwén boo bëriwul ak man déwén itam man faalewuma la man fi ma war a yegg ci làmb dama koy yegg. Mhm. man dama am gëm-gëm boobu ci mbër mbër bu nekkee champion wóolu doole wóolu bëreem mhm. kenn mënu koo tere atteindre objectif am gis nga yaa baax rek di wax kii na ma jàppaleeg tëggal ma gis nga li nga nekk boo ci continuer di ci nekk di entraîner mhm. nekk ci li nga kenn du laa tere dégg champion ndax tey tu as toutes les capacités physiques tu as toutes les capacités techniques te yaa ngi jox làmb ak xam problème bi kay mooy wàcc yoon mais fii ak yaa ngi tegu ci yoon kenn du laa tere dégg daal yi. incha allah jërëjëf donc euh, bëggoon nañu gën a yaatal mais xam nga tey la aljuma. te xam nga on a eu beaucoup de temps avec le président du CNG. xam naa jour boobu focusé rek bëgg fi ñëw rek la porte est grandement ouverte mun nga ñëw ñu gën a waxtaan gën a yaatal. Mhm. Ah, ñu bàyyi bës bës lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy euh, sànq am na lu ñu wax mooy am na jamono. Mhm. le CNG avait mis en place le tournoi du souvenir. boole woon ci ay champion ay naanaan yoo xamante ne macha allah euh, bëri woon nañ ci. mu nekkoon ay poids lourds je me rappelle ay ñoom Mango 3 ak yeneen poids lourds. Mm-hmm. Euh, bëri bëri woon nañ ci ci ay kër jéen sax. waaw ay fàttaliku. yaa ngi wax yu yàgg waaw <laughs> ay jamono la woon quoi ay CNG vraiment organisé woon ay combats yu neex ba ci ñoom paka la parce que tournoi du souvenir ay ñoom guerre bu zapp ak yooyu yëpp bëri woon na ay lutte avec frappe lutte kii. Mm-hmm. maa ngi jaa jaawale jaxase sax ñaar yi mooy tournoi du souvenir bu CNG organisé woon ak tournoi mbëri démb. Ah, bi ñoom Mango 2 organisé woon. quoi waaw yooyu la laay jaxase maa ngi ci lim ay kii mm. mais ñoom ay ñoom ubbali ni jot na ñu organiser leen autour des tournois sans que question bi ma échappé sax biraa parce que ñu ngi dans la précipitation mooy je voulais lui demander qui est le roi des arènes bëgg naa ko la question boobu mm. mais on mais jot na ñu am les championnats yoo xamante ni comme le CLAF day révéler ay ay naanaan tout ces tout ces lutteurs là yu toog di wax amuñu combat les général Malika les Serigne Ndiaye numéro 2. les Eumeu Sène junior les Zambala les Obali. Mhm. dañ leen war a boole ci benn tournoi boo xamante ne. mais su ma la posé waatee des arènes. amul werante ma dem te ñëw. Ah. si Modou Lo le roi des arènes. loolu ñëpp dañ ko war a nangu. Modou Lo le roi des arènes Modou euh, kenn mu kenn waru ko contesté. Hmm. gis nga boxe. boxe tey na nga am dix défaites booy dem di teg booy dem di kii wa compétir ak le champion ñu teg ceinture bi boo gañee yaay champion mais xam nga boo gisee mu posé la question donc euh, ah gars yi nag dañuy gaaw a commenté boo wax boo kii ñu ne da ngaa faraloo Modou parce que lu tax ma ne la euh, yaa andi question boobu mais tey bu Tapha Tine taxawee ne Modou du sama roi Balla Gaye taxaw ne Modou du sama roi parce que. amul lenn loo xam ne lu ko lu ko lu ko lu ko CNG ki xam nu moom moo échappé hmm. donc tey mbër bu ñu taxawee ne kii du sama roi nag. boo demee tey UFC. Hmm. John Jones mooy ceinture poids lourd Francis Ngannou bu ko neexee mu ne du sama champion. Hmm. parce que mosuñoo tase. Ah. mais Francis Ngannou bokkatul sax UFC PFL la bokk. Reug Reug bu ko neexee mu ne John Jones du sama champion ndax mosuñoo tase. Malikin bi nga xamante ne moom mooy yor ceinture one championship fii Reug Reug nekk bu ko neexee mu ne John Johnson sama champion mais John Johnson mooy champion wu UFC même ñu mu bokkal lig foofu noonu te tasewul ak ñoom mais dafa am lu ko lu ko lu ko ŋànk loo xam ne lu wóor ne même bu Balla Gaye bañ a Modou Lo bañ a CNG moom moo ko régulariser Yékini il n'a pas affronté tout le monde waaw mm-hmm. mais il était le roi des arènes mm-hmm. Manga 2 am na ñu mu bëriwul Manga 2 bëriwul ak Moustapha Guèye waaw Manga n'a pas croisé Tafa alors que Manga dë tey était le roi des arènes. Hmm. kon mbër mënoo bëri ñëpp. Hmm. mais daal il faut que CNG ko. loolu nga bëgg CNG nu mu koy régulé mooy lenn la mooy day teg règlement bi teg ko fii. Hmm. teg fi règlement bi mooy lan jël titre bi jox ko Modou Lo qui est en train de faire des résultats léegi nag ku daan Modou Lo yaay roi. loolu laa léegi nag lan lan la nit war a def pour affronter Modou yooyu itam yeneen norme la. yeneen mooy tey CNG bëggoon naa ci la classement dafa jot mu am ci làmb. Mhm. te loolu dinaa ci am benn émission. incha allah am ku ma ci dalal mais loolu ci mënut a dégg Obali mii. Mhm. moog Eumeu Sène junior na. non moog Eumeu Sène junior neex na. moog Tyson 2 neex na. moog Tyson 2 waaw ci Tyson 2 nag lay dépendre. waaw ndax Tyson 2 ci victoire bi mu jógee digganteem ak caatu yoof ah. waaye moom ak. Jordan Zambala neex na. mook Jordan itam combat la. mook Jamteeri. mook Jamteeri itam combat la. Ah, kon nag ñooñu parce que Obali li tax muy mën a rivaliser ak ñoom du palmarèsam ci lutte avec frappe mais hmm. palmarèsam ci lutte traditionnelle sans frappe ak popularité am boole na ko mbër buy takk ngemb ci làmb. mais dama ne Serigne Ndiaye dëgg Obali sax làmb la. bu Obali ak tey jii ki nga xamante ne pour la ñuy suul ay mbër li bi door. Hmm. li bi door dem na Espagne fu mu toll nii ah. bàyyi na làmb. waaw <laughs> benn affaire la. <laughs> parce que mbëri dañuy daanu léegi ñu leen di bëgg a. suuf ubbali ak ki mujjee ki ki ki ki ki caatuwaalo sax combat la. combat la même si ci dal doole mujjee jóge am defañ mais champion la. Mm. na nga ko bàyyi xel. donc am na ay adversaires yu bëri yoo xamante ne ubbali am na ko. Mm. ci làmb ji fu mu toll nii ubbali mun naa bëri ku ne. Mm. géej waaye ay adversaire dafa jeex. Pikine ay adversaire am du fa jeex. sama xel dem na ci Cobra. Fass. Mm-hmm. Cobra gëj naa bëri. yàgg na mais Obeuly ak Cobra làmb ju metti la làmb ju neex la. Mhm. donc Fass itam am na fa ay combat mhm. Baara Ndiaye. baax na bañuma kenn. te Baara dama war a invité man waa parcelle rek laa bàyyi si làmb waa parcelle. Baara Baara Ndiaye préparé dama la war a invité fii. waaw uh-huh. day dóore de. day dóore de ñooñu ñëpp ñemewuñ ma nag. non baara moom ñeme man tamit bizarrement nag man dóoraguma fi mbër mu daanu dóor yóbbuma fi mbër ardo mais li tax mbër yi war ma ragal uh-huh. man dama xamul. Baara Ndiaye moom ragalu la ku si ne Obeury boo tapee YouTube ba xool tournoi Obeury di bëri rek. Ah. yow yow yow yow da ngay da ngay mel ni ku ku kuy man nag dama comprendre gars yi ay mbër yu yooyu lañ soxla mais nag kontaan naa si émission bi. jërëjëf xam nga jërëjëf di